jot nañu ndigal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké noo ngi koy ñaan mu yàgg lool te wér ñëw ca rakkam ja Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Saliou borom ngot borom njàppndal borom xabaan borom njurul borom ndoka noo ngi fii nag tey toog ak soppeb Serigne Touba ku xam boppam bëgg yoon wi defandar yoon wi sëñ Bamba gënal ko léppam muy mbokkum sëriñ bi waaye taalibe ñor ko mu doon kenn ci sëriñ tubaa Cheikh Saliou Mbacké waaye ndekete wëllëre ginnaaw lay féete sëriñ Moustapha mii ma toogal tey ci dëkkam bu tedd bi di Afiyé toog mu ànd ak ki bokkam njaboot gi wër ko lii taxoon sëriñ wu def la nam la defoon kon noo ngi fii ci tànki sëñ Moustapha Mbacké mu sëñ Abdoulaye Karam mu baax mi xam ngeen ni nag bu sëñ Moustapha moom bu yëkkatee kàddoom xel koo ma jub si xel koom bu ñuy wax jàmbaari xel koom jàmbaari xel koom yi ngi toog moo tax sëñ Moustapha le 23 moom le 21 des na ko fekk ca tool yi waaye nag ki yaakaar sëñ Saliou bëgg ko gëm ko sëñ Saliou tibb teg ca loxoom ba mu mën a dimbalee ba Sénégal boo ko tuddee dàkkanteel ca sëñ mooy Cheikh Amar jàmbaari sëñ Saliou sëñ Cheikh jël ko def ko jëwriñ waaye sëñ Cheikh moo dis gor ku ne xam na ci Cheikh li mu jógee ak fi mu toll waaye Cheikh daaw ba muy ñëw te tool daf ni bu ma doon raami dem ca tool yi tey appel bi fii la war na toog ci sa wet waaye sëñ bee ko ñaan ni ko yebalal peex rek mu dem moo tax tey ma ñëw teewal fi Cheikh Amar darmanko dar soppe yi xarit yi wëlëri yi waa Ndar waa Ndakaaru waa Njaaréem Cheikh mar bàyyiwul kenn ne ku mu lebal ku mu lebaloon ñëwal fay si ko ci seen caariw ne koo xam ne kii bëgg nga koo lebal te dana la fay ndax sëriñ Saliou ne ñëwal leb si ko ci lebal si ko ci ngóob mii dana la fay ci doole yi sëriñ Cheikhum sëriñ Saliou moo tax Cheikh Amar ni bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn lépp lu ma am daal dana nekk ci ginnaaw sëriñ Moustapha ànd ak mbooloo mi doon jëwriñ dem ca tool ya ne mosu fa am ñaari fan ne Abdoulaye ma ne ko Mbakke mun ma waxal ma mbooloo mi na ma ko daa defee rek laa ko defee waxta yi yemb na fay naa ko mbokk yi yemb na fay naa ko ku soxla wata ak foo ko bëggee laaj ko Cheikh Amar dana la ko jox waaye lépp nag mi ngi ci loxol gor sii Serigne Moustapha mii nga xam ni diggante ak Cheikh Amar ajumaa ko gaaw la benn bis dox fi woote bii nga xam ni Serigne Moustapha la karam nuy ñaan nga yàgg fi te mbakke Mbàkke bi nee na la 21 moom mii Serigne bi ni ko jàppal bés bi wooteel ma ko dana fa dem taalibeem ba soppeem ba kama waxan ni ma xaadim maanaam mu ni ma doo ma fekk ci néeg yu bari ci ndakaaru waaye bu sëñ Moustapha ñëwee ndakaaru man Cheikh Amar lu ma jàpp danaa ko bàyyi ñëw sëriñ baa ngi nii maa ngi nii di jëwriñam di jëwriñu sëriñ Cheikh ñoom ñaar ñu fas yéene faa nekk jëfi sëriñ Moustapha la karam digganteem ak taalibe yi digganteem ak bokk yi digganteem ak jaami yàlla yi digganteem ak jullit yi na ci xel koom rawatina jëfi Cheikh Amar ci kër sëñ Bamba ak Cheikh Saliou Mbacké kon ñu ngi woo Sénégal gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di woo képp koo xam ne ak jullit nga rawatina njabootu maam Serigne Touba Khadim Rasoul nun ñëpp nañu àndandoo la 21 nañu fekk fa Serigne Serigne Moustapha la Karam ca xel koom ci liggéey bii nga xam ni ku ci bokk da ngaa war a fay ndax bokk ci lu ñuy defal sëñ Bamba te mu jëm ci yàlla sunu borom ku ci sëñ bi boole da nga ko war a fay. ndax sëñ moo Maodo Aminta sama sang ba daf maa wax ni ma xaadim ma ne ko faal mu ni ma ku ñuy jeex séef ëllëg da ngay jaxasee kuñ dul jeex sëñ Bamba lañ dul jeex daraam kon sëñ Moustapha la karam yàlla na nga fi yàgg te wér di xamal àddina bépp ni ñoo ngi fas yéenee door euh, door liggéey bi départ bi le 23 ci weer wi ñu nekk muy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre bii nga xamee ni si ci la ñu nekk moom jëmmi Serigne Moustapha moom Serigne Abdou Lakram nag nim ko baaxoo defee at mu jot ñaar fukki fan ak benn ci weer wi ci la fas yéenee départ ni mu ko baaxoo demee moom itam incha allah ma ngi fas yéenee nekk daara januy wax daarul xuduus mu koy yëgal ñëpp bàyyiwul kenn liggéey bi nag at mu jot saa yu nu ko wootee bu ñu waxee liggéey faw ñu wax doomu aadama yay dem doomu aadama yay dem itam faw ñu wax oto ya nga xamee ni si moo leen di yóbbu looloo waral ñoo ngi sant mboolem ñi nga xamee ni yàgg nañoo dugal seen loxo ci oto yi ak gasoil yi oto yi yóbbu doomu aadama yi di leen delloo siwaat cant googu ak ngërëm li nag ñoo ngi koy doole Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké mi nga xamee ni at mu jot ay wataam moo si daan jiitu ren jiiteem noonu la ko defee waat nee na ma ngi séentu ñëpp itam départ bi le 23 la ci xel koom gépp moom Serigne Moustapha nag ñaar fukki fan ak benn ci weer wi lay départ daaray daaru Xudóos lay nekk liggéey bee itam ni mu ko baaxoo defee kuy xarit. di soppe di wëllëre di am di jàmm ma ngi lay sant ma ngi lay gërëm nee na du yeexal kàddoom te santul gërëmam xaritam di ko xameen si moom itam lu mu dugg moom moom ñoo ko ànd muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou Mbacke yebal na fi rajoom ma ngi sant mboolem organe de presse yooyu yëpp moo xam muy rajo di télévision di site internet ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di séentu ñëpp di ñaan képp ku ci teew nag wala nga jàpp si yàlla faj sa aajo bi barakati waqdi xawaaija alladina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dama jot ndigal loo xam ne mi ngi jóge ci Cheikh Saliou Mbacké muy sëñ Cheikh Saliou waaw ah, moom moo toog jataayam ci jamono ji nga xam ne ci la ma joxe ndigal <laughs> ndigal li itam mu ne moon bala nga koo wax eh, gaawu ne tey la woon danaa waxtaan ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ba am ci ndigal ginnaaw <laughs> bi it la ma woo ma waxtaan naa ak moom kon nag mënees na ko jottali jottali gi nag moo indi daje bi ak mbooloo ndax kilifteef yi nga xam ne ni euh, moom ci lañu tënku mm, moo waral nu woowaat ñi nu gën a jege fii ci commune yi nga xam ne ñoo dend ak nun ak commune yi nga xam ne jël nañ nu waaye mbooloo dañ fay jóge ba dinu defal li nga xam ne moom lañ bëgg ci Xelkom waaye li ma sëñ bi waxoon rek mooy a biralaat mbooloo mi ginnaaw bu ma amee ndigal ci Cheikh Mamadou Mountakha ah, wane waat ne moom eh, ci kilifteef rek lay dox moom ci jëmmi boppam te du dañ di ci dox ci kilifteef loole nag kilifteef ga muy dox moo war tax mu yilifaale no ci kilifteef googu mu waxoon ma ak ne ma mm. eh, boo demee ba yëkkati kàddu nga waxaat Sénégal gépp ne Cheikh mar ba tey jii may may wax ak yow jëwriñu Xelkom jooje maa ngi ko bàyyiwaat ci loxoom. xëy ba defee nit ñi itam. xam ne kooku kon am na ndimbal digganteem ak sëriñam. Xelkom nag dafa am Touba Xelkom Daaru Salaam. daaru Khodoos daaru Sakor daaru Mohin. Mm-hmm. loolu boo ko xoolee dem na ci euh, euh, deux mille quatre cent hectares deux mille quatre cent hectares nag ah du lu woyof loolu. Mm-hmm. nga xam ne moo nekk lenn li mi ngi daaru salaam lenn li mi ngi daaru xuddos lenn li mi ngi tubaa xelkom lenn mi ngi mi ngi daaru sakor lenn mu ngi daaru moyen moo waral nag sëñ bi ne naa woo mboolem taalibe kon nag na ci maa ngi ciy woo ñëpp di senegal gépp muy bokki yi ma bokkal Serigne Touba yëpp hmm. muy bokki dëkkandoo yi di bokki jullit yi ndax ku ne xam na ne sëñ Modou mi toog naa xelkom ahlu kunt yi ñëw fa alu cane ba ñëw fa alu ah, tiwaawoon ñëw fa ah, ñëw yendoog nun ca xatax ba mhm. ci daaru xuddoos googu bi sëñ Saliou at mi sëñ Saliou wuy soog a dem kon woote bi jëlut kenn xanaa ku yàlla bëggal ndimbal rek moom lay jël kon noo ngi ciy woo ñëpp dégg ngeen sëriñ Moustapha wax ju rafet ji mu wax sëriñ Abdou Khadim moom sëriñ Cheikh Mbacké moom si na léegi ànd ak magam ak njaboot yi ak bokk yi ak wëllëre yi waaye sëriñ Cheikh boo ñaanalee sëñ Muntaxa benn ak sëñ Cheikhum sëñ Saliou daanu la ñaanal junni mhm, dëgg la de sagal nga sëriñ Touba waaye daggiwaat nga nu Mbakke sa sa sa appel bi dafa ndar képp lépp lépp ngi ci biir waaye kennal nga sëriñ Touba murit bu ne màggal nga ba mu des nga yor saw des mhm. yow nag sa des wii yaa ngi ko jëmewaat ci sëriñ Touba foofu la la murit yëpp war a fekk roy na fi ànd ko ak yow mbokk yi sëriñ Moustapha Ngoog sëriñ Mountakha ngi nii sëriñ Cheikhoum sëriñ Saliou moo woote borom ngot borom njàppandal borom xabaan borom njur li baax di baax baax dem bàyyi ku baax moo gën boo fi bàyyee ku baax loo fi bàyyi du ràpp du raaf du réer sëriñ Saliou dem na waaye bàyyi na fi ku baax bis baa ngoog le 23 bu kenn manqué na ñëpp tàllal amin